ñun ñëpp ñu ngi nii taxaw financement lañ amut boo gisee taabal ji nii tey kaye yi nga xam moo ci toog ñun jigéen ñi ñooy liggéey di defar sun ordre sewel di leblante ci suñ biir di fay par la seen di jënd sun euh, omo di leble di fayu par la seen ñu yor suñuy kees di def par la seen jigéen financé wunu góor financé wunu financement nag lañ bëgg ba pare financement financement lañ bëgg docteur Sylla financement financement lañ bëgg ginnaaw bu loolu wéyee yow yaa yaa jox nañ la suñ loxo te gisuñu lu koy dindi ndax ñun liggéey ci ndindi rek lañ bëgg ak ku ñu jàppale yow nga bokk ak yow ndindi nga taxaw ne da ngay jàpp da ngay jàppale ndindi ñun ñu jox la loxo te gisuñu lu koy dindi sama bokki jigéen yi nag ñoom ñëpp taxaw nañ nee nañ la kaat bii nu jëm fas nañ yéenee wate ji pour président Macky Sall am ndam fii ci ndindi ak li ko wër bokku taalibe yi maa ngi leen di di leen ziyaar di leen baalu àq ci toogaay bu yàgg bu ngeen toog di ñu xaar di leen jéggulu it ci ñàkk yàgg biñ fi ñàkk yàgg suñu papa ndaw ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fu lool te wér di ko ñaanal njaboot gi ah, soxna May bu sa baale ñu ngi lay ziar bu baax di la ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp sa gannaaw ñëpp yàlla bàyyi leen ba seytaane bañ a dox ci seen diggante. soxna si soxna Faati Ndaw maa ngi lay ziar yow déglu naa sey kàddu bu baax maa ngi leen di ñaanal yàlla oyofal yan bi ndax njiite mbooloo jigéen dafa metti yàlla ngeen déggoo yéen ñëpp ñi fi waxtaan ñëpp liñ fi wax suñu xol sedd na suñu tontoo Sylla ñu ngi lay gërëm yow li nit ñi wax li nga def bu ko fu ko defoon ci dëkk bi kenn sonn kon bu campagne jotee dañuy nekk di def ay caravane rek jour vote bi jot ñu def voté ji président gagné kon yàlla na la yàlla doole yow sa man man sàmm la euh, tonton Amadou li nga waxtaan yépp kontaan nañ ci ndax programme bi ngay joxe. pour son excellence président Macky Sall lu am solo la kontaan nañ ci yal na yàlla yokk xam-xam bi euh, suñu coordonnateur yow kàddu yi rafetlu nañ ko lool fu ñu dem yaa ngi ñaax nit ñi ñu gën a am volonté pour le jour le 24 ñu bañ a bañ a ñu nit ci volet boobu dañuy jógee waxtaan ak yéen suñu mbokk jigéen ñi xam nañ ne société bi jigéen a ko yor. bu dul yéen dara du dox seen engagement pour développement Sénégal ñu leen di ci gërëm di leen ci jaajëfal kenn amul seen fay li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg tey mooy waxtaan ak yéen ci suñu benn mbër boo xamante ne dafa war a jongante jongante goo xamante ne dañu bugg mu gañe ko largement delloor ko njukkal sargal ko ne ko kontaan nañ ci sept yi nga xamante ne moom la jot a def ndax koo xamante ne mu ngi tàmbalee tabax di fondement fondement bi fu nekk nii suñu xel dal na ci dañu koy ñaanal rek mu yëkkateeg jàmm te mu jik ko tamit yéen ñi ñu ñëw tey dañu am ci yéen ci yaakaar jouru élection yi seeni voix dañ ko soxla fuñ ko soxlaa mooy ci urne yi bu ngeen demee ba fa ngeen war a voté na ngeen xool carte ba nga xamante ne moom mooy beige marron am foto bii di suñu candidat président Macky Sall juróomi photo ñoo fay nekk juróomi carte ñoo fay nekk waaye na ngeen xool carte ba nga xamante ne moom moo am beige marron am foto président Macky sal ñu ñaan leen na ngeen jël enveloppe dugal ko ci te bu ngeen ko collé bu ngeen ko collé vote bi day nul dafay mel ni di coono bi ñu am yépp dafay daal di nul kenn du ko compter voix bu ngeen collé enveloppe yi loolu dañ leen di ñaan ngeen xëy def ko seeni ay doom dem defi ko seen i dëkkandoo defi ko seen ay coloré defi ko bu ko defee bu tàkku saanee ñun ñëpp ñu génn daal di feete victoire am loolu dañuy ñaan ci barke Serigne Touba yal nañu ko yàlla may li ñu ko mun may du dara lu dul détermination ànd leen ci déterminé ak gëm lépp loo xamante ne bu gëngeen ko. li ngeen wax ak li ngeen waxul ndax du lépp dañu mën a wax ci ay micro bu ngeen jógee na ngeen xool ñan ngeen di yebal ñu ñëw xool ñu ñëw waxtaan ak ñun xool kenn ku ci ne liñ leen mën a dimbalee. Ah, seen formation yi ngeen def gis nañu seen diplôme yi ah maraîchage bi lu ñu war a gën a yëngu la ndax loolu li mën a développer suñu koom-koom la léegi nag li ci des mooy gën leen a regrouper wu. gën a góorlu ba nga xamante ne projet bu taxaw ñu mun cee dugal suñu loxo ngeen mun cee génn loolu dañ leen di ñaan gën leen a organiser wu nañu bàyyi informel bi jigéen ñi bu ñu bëggee autonomisation dañu war a gëm seen bopp gëm sa bopp nag weesuwul organiser organiser boo xamante ne tey jii ku ñëw bëgg laa dimbali nga jox ko say kay tàllal ko loolu dañu war a tàmbalee pour euh, fu ñu bëgg àgg ñu àgg fa. nañu gën a góorgóorlu suñu bopp bañ a xeeb suñu bopp xam ne kenn mënaluñu dara ñu ñi waa Touba kenn waruñoo ëpp jom ndax ay taalibe sëriñ Touba lañ te taalibe Serigne Touba dafa war a gëm boppam gëm ne loo xam lépp loo xamante ne am na ci kaw suuf rek loxo war na cee daj man dama loolu laa gëm lépp loo xamante ne war bëgg nañ ko rek dañ cee war a jot jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax ceeb biñ leen fi andil. jigéen ñee ko moom enveloppe bi tamit ana soxna si yéena ko moom bu ngeen jógee na ngeen ci def ay baxal di waxtaan ak euh, ci wàllu bilan président Macky Sall di ci ñaax nit ñi di woo nit ñi di dem wër ci nit ñi euh, ba le au soir du 24 février incha allah kontaan nañ bu baax jërë ngeen jëf jërë